أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء حي على الصلاة وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء دنياك دع أسبابها واهنأ بساعات الصفاء واملأ كيانك خشية واملأ فؤادك الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد mbokki jullit yi dafa bokk ci xereñu borom bi subhaanahu wa taala mu gënale yenn ci ay fan caye ca des ndax fan yooyu mu gënale da koo jagleel ci yiw ak xéewal loo xamante ne newul ca yeneen yi fan loolu nag lépp xereñu yàlla la ak ngëneelam gu mu def ngir tamit bu ko xamalee jaamam ñi nga xam ni aw yiw de leen a soxal aw yiw de leen a yitteel ñu góorgóorlu ci loolu daal di ci njëkkante waaye tamit ngir gën leen a sawarloo ndax dañuy nekk ci di jaamu seen boroom ci at mi yépp waaye bu ñu demee ba ay fan dikk mu nekk ay fan yoo xam ne yàlla xamal leen ne am na lu mu ci def ci mbaax loo xam ne newul ci yeneen fan yi nga xam ne ñoo nekk ci at bi bu ko defee ñu gën a sawar gën a góorgóorlu ci loolu bokk ci fan yooyu nga xam ne yàlla gënale na ko fukki fan yi nga xamante ni ñi ngi ci te amaana tey mooy bis bi ci jiitu di fukki fan yi jiitu ci dil xijja fukki fan yooyu fukki fan yu màgg la yoo xam ne borom bi subhaanahu wa taala giñ na ci ci alquran ci li nga xam ne abdullah ibn abbas wax na ko ak lu bari ci ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo daan tafsir alquran ci asalafu saalix ñu ne fukki fan yooyu la yàlla namm bi mu waxee ne wal fajri wa layaalin ashir mooy fukki fan yi ndax guddi yi la wax waaye am na tamit loolu xereñ gu ci nekk ci baatu guddi yi waaye liñ ci namm mooy fukki fan yi nga xamante ne mooy fukki fan yi dil xijja yonente bi alayhi salatu wasalaam doon wax ci ngëneelu fukki fan yooyu ne amul jëf ju baax ju di def ci beneen yeneen fan yu gën fan yi nga xamante ne bi mooy fukki fan yi dil xijja fukki fan yii nii lu ci nit di def ci lu baax moo gën moo ëpp yool su ko su defoon ci yeneen fukki fan yoo xamante ni bokkul ak dil xijja lenn ci as dañ doon wax ne fukki fan yi moo gën ci fukki ci fan yi àdduna même sax fukki fan yi mujj ci weeru koor ku mel ne alimaam ibnu taymi rahimahullah mi ngi doon dajale eh, wax jooja di wax ne amaana guddi yi mën nañoo wax ne fukki fan yi mujj ci weeru koor moo gën waaye su dee bëccëg yi fukki fan yi nga xamante ne mooy fukki fan yi jiitu ci zilxijja moo gën ndax nee na li tax mu gënale guddi yi ci fukki fan yi yi mujj ci weeru koor mooy ne ci guddi ya laylatul qadr da caa bokk te laylatul qadr dafa bëri ngëneel wax jooju wax na ko ku mel ne alimaam ibnu alqayim rahimahullah rafetlu ko itam ci ne lu ñu mën a dégg la gëneel googu nga xamante ni nekk na ci fukki fan yii taxoon na lu bari ci ñoom ci as-salafu saalix daan nañ ci góor góorgóorlu bu baax di ci gën a góorgóorlu di ci gën a taxaw ci ay jaamu yàlla mu nekk jaamu yàlla yoo xam dañ koo booyal lu dul loo xamante ni dañ la koo tënkal ci ab bis ne la sàngam def ci nàngam wala wax ci nàngam wa dañ koo booyal nit da ciy góorgóorlu rek ci li nga xam ne moo jàppandi ci moom ci ay jaamu yàlla mu def ko ci xeeti jaamu yàlla yi nga xamante ne yoonal nañ ko nee nañ ibnu Jubayr bu fukki fan yi mësaan a dugg danaan mu bokk ci ñi nga xam ñoo jàngee ci saxaaba yi rawatina ci ku mel ne Abdullah ibn Abbas danaan góorgóorlu lool ci ay jaamu yàlla danaan góorgóorlu nekk ci ay jaamu yàlla ba dañ daan wax ne li muy def sax est ce que dina ko attan dina ko attan ndax góorgóorlu ci jaamu yàlla ndax yonente bi alayhi salatu salaam moo waxoon ne fukki fan yi na ngeen ci góorgóorlu di ci bari lu ngeen ciy tudd yàlla di ci sàbbal yàlla di ko ci màggal ak di ko ci di ko sant ci fukki fan yi Abdullah ibn Abbas doon na wax ne wax jooju yàlla wax ne wadkurullaha fi ayamin loolu yàlla di wax ci fan yi nga xamante ni mooy fan yi aj mu ne fan yu ñu xam dee leen ci di tudd yàlla mu ne fukk fan fukki fan yi nga xam mooy fukki fan yi dul xijja lañ ci namm mooy tudd yàlla bu bëri bi nit ki di tudd yàlla bu fekkente ni dul xijja teru na rek nit ki na góor góorgóorlu ci di tudd yàlla lu bari toxal nañ sax ci abu hurayra ak abdullah ibn omar ne daan nañ def ci fukki fan yi bu ñu demee ci mbooloo dañuy yëkkati seen baat di kàbbar di sàbbal yàlla ak di ko màggal bu ko defee nit ñi di toppaat ci li ñuy wax loolu nettali nañ ko jële ko ci ñoom ku mel ne alimaamul Buxaari nettali na ko ci téeram boobu di as saxiix waaye solow ko daf ko ratal noonu rek muy taaliq da koo taaliq mu bokk ci yi nga xamante ne yonente bi alayhi salatu salaam yoonalal na ko xeetam ci fukki fan yi muy woor ci lu ci jàppandi ci nit ki mu woor ko ndax suñu ndey xafsa radiallahu anha nee na yonente bi alayhi salatu salaam daawul bàyyi ay yëf yoo xamante ne daan na taqoo di ko def yooyu mu daan taqoo di ko def mu ne bokk na ci fukki fan yi nga xamante ni mooy fukki di woor mën nañu wax euh, ci koor yi mu daan woor di woori naafila saa bu fekkante ni fukki fan yi teru na yonent bi alayhi salaam daan na ko woor imma mu woor lépp wala mu woor ca la nga xamante ne bi moom moo ëpp loolu nag lu wér la luñ toxal jële ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne daan na woor ci fukki fan yi yoonaloon na ci koor muy fukki fan yi nga xamante ni mooy fukki fan yi dil xijja waaye aïchata radiallahu anha dafa wax ne moom xamul woon yonent bi alayhi salaam gisu ko woon mu daan woor gisu ko woon mu daan wor ci fukki fan yi loolu la wax moo tax sax yenn ci borom xam-xam wax ne moom daf ne rek xamul wala gisul ñàkk xamam ak ñàkk gisam nag tekkiwul na yonent bi alayhi salaam daawu ko def ndax wax ne xaw ma nàngam tekkiwul ne da wax ne xam naa ne loolu amul wax xaw ma nàngam bokk la nga ne xam naa ni nàngam amul ñaar yooyu bokkuñu te moom daf ne xamul woon ne daan na wóor loolu am na ñu wax ne kon loola li muy wane mooy ñàkk xamam ne daan na wóor amaana jamono bu mu daan nekk ak moom xëy na daawul wóor ndax sabab bu taxoon wóorul léegi bu ko defee mu nettali li mu xam keneen ku ko gis ne moom gisoon na ko mu woor mu nettali ne yonent bi alayhi salaam daan na woor fukki fan yi comme ni mu ci xadiis Aïcha ci xadiis Xafsa loolu la alimaamu Nawawi wax ne borom xam-xam yi dañu wax ne am na ay textes yu wér yu ñëw saxal li nga xamante ni mooy koor ci fukki fan yi li ñu toxal jële ko ci Aïcha bu boobaa dafa laaj ñu jox ko déggin boo xam ne mooy tax ñu méngale ko ak li nga xamante ni nettal nañ ko jële ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ko defee lenn ci loola du dàqoo loolu si juróom-ñeenti fan yi jiitu la waaye li nga xamante ni mooy juróom-ñeenteelu fan bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ca yoonal ki nga xamante ni nekkul arafa bu ko mënee woor na ko woor waaye nag koo xam ne dafa taxaw arafa daf ko tere woon mu woor naha an mi arafa bi arafa ku nekkul arafa mu woor ndax xamle woon na ni woor bis boobu nga xamante ni mooy bisu arafa dafay far bàkkaaru at mi weesu ak at bi nga xamante ne bi moom mooy moom mooy dëkkmal léeg-léeg nag liy posé wu comme question mooy bu fekkee arafa dafa tombeek bis yi nga xam ne dañoo tere woon nit ki di ko dàkk di ko wor mooy lu mel ne bisu ma wala bisu samedi yonentu bi alayhi salaam dafa tere woon nit ki di dàkk muy di taamu bisu àjjuma di ko wor bisu samedi tamit tere woon na ko ne laa tasuumu yowma sabti illa fi ma ftarada aleykum aw illa fi ma fturida aleykum mu tere woon ko waaye loolu li ci gën a jege ci waxu borom xam-xam yi wal ilmu inda mooy bu fekkente ni nit ki taamuwu ko waaye koor la goo xam ne dañ koo yoonal mu koy woor ba daje ak benn ci fan yooyu loolu du ko ko teree woor ndax li koy firndeel mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa waxoon ne ku woor ajjuma ci dàkk ko taamu ko bu fekkul ne da nga kaa boole ak alxames na nga woor samedi boole ko ak moom kon loolu li muy tekki mooy bu dee samedi bi da nga ko woor te du koor goo xam ne kooruk dàkk ak taamu la bu waa dina mën a nekk mu waxoon tamit ne koor gi gën ci koor yi mooy kooru yonente yàlla daawuda mooy woor benn fan dog benn fan te kuy def loolu ala kulli xaal di nga dajeeg ajjuma wala nga dajeeg samedi kon bu fekkee ci anam boobu la mooy loo xam ne ak dëppoo rek la ak tombe la waaye du nit ki moo ko taamu ngir jàpp ne bis bi xëy na dafa am ak jagleel gu ñu ko jagleel amaana ci anam boobu dina mën a nekk wal ilmu inda allah yonentu bi alayhi salatu wasalaam tamit ki nga xam ne moom moo fas yéene rey moo fas yéene rendi ci fukkeelu fan ba ndax suñu borom subhanahu wa taala daf ñoo yoonal fukkeelu fan ci weer wi ñu ciy tuur deret la ñuy rey ci bahimatul an'am lay bokk muy gëléem wala nag wala xar wala bëy rey googa ñu koy rey dañ koy eh, sàkkoo ngëneelu yàlla subhanahu wa taala di ko jaamoo yàlla léegi nag koo xamante ni weer wi teru na nga fa yéene rey yonentu bi alayhi salatu wasalam ne woon na na jàpp ba bu mu dagg lenn ci kawaram wala ci ay wewam nga xam ne dafay mel ne comme ku armal daanaka bu ko defee mu bañ a jël lenn ci kawaram wala lenn ci ci li nga xamante ni mooy wewam bu ko defee de bàyyi na ngëneel waaye du tere rayam wér ndax ñenn ñi dañuy laajte ndax bu nit ki daggee karawam wala weyoom day tax bu rayee rey bi du wér loolu bu ko defee du tere li nga xamante ne rey na ko incha allah wér waaye bàyyi na li nga xamante ne bi moom moo gën a mat li nga xam ne loolu la ñuy sàkku ci li nit ki di rey mooy comme niñ ko waxee mu bokk ci yi yàlla reyloo yi ñu yàlla reyloo yi ñu yàlla rendiloo muy bahimatul na mooy mu nekk gëléem wala mu nekk nag wala mu nekk xar wala bëy de tam dañuy sàkku tamit mu am benn âge bi âge bi nga xamante ni moom lañ ci sàkku xëy na nit ñi rayatuñu géléem waaye bu doon gëléem la juróomi at la bu dee nag la ñaari at bu dee xar ak béy benn at lu dul koo xam ne am xar mu matal at ba teg sax ci li gën dafa jafe ci moom boobaa bu amee bu am xaaju at ak lu ëpp ak lu teg boobaa loolu dina ko doy mu mën koo rendi ci bis bi nga xamante ni moom mooy bisu tabaski ki nga xamante ni bi moom mooy rey di reyaale njabootam bu reyee xar wala mu rey béy doy na ko ngir moom ak njabootam bu fekkente ne ay nit dañoo bokk daal di rey li nga xamante ni mooy gëléem wala nag boobaa juróom-ñaar ñoom ñooy bokk gëléem ga wala juróom-ñaar ñoom ñooy bokk nag bi kenn ku ci nekk sa paar dafay mel ne comme ku rey xar muy sa paar muy benn xaaj ci juróom-ñaar boobaa kenn ku nekk ci ñoom loolu moom moo lay doy. bu ñu lay wax nag wàllu rey tamit ba léegi li ñuy tuddee ay uyub muy ay mbir yoo xam ne dafay nekk ci gàtt bi. ci lu mel ne ñu dagg gen gi wala béjjën ba damm wala bëñ ja damm wala mu mu pat wala mu làggi yooyu yépp ay ayib la bu nit ki tànnee xar moo xam ne xar mu baax la xar mu mat la ndax da koy jaamoo yàlla xar mu rafet la loolu moom moo gën mucc ci ay ayib mucc ci ay ayib bañ a am ay ayib loolu moom mooy li gën waaye am na ci ayib yi loo xamante ni bu ca nekkee day tax nit ki du ko mën a rendi bu fekkente ni tamit dafa gën a tar loolu ma ne dafa gën a màgg loolu gën a xëy na làggi ndax dañuy wax loo xamante ni dafa làggi benn tànk di sooxee benn tànk soox boo xam ne soox bu fës la wala mu patt patt boo xam ne bët bi dafa yàqu ba boo ko xoolee xam ne kii gisul wala mu nekk koo xam ne dafa yooyo yooyo ba daanaka yokku nekkatul ci biir ndax xëy na màggat wala mu feebar ba fi mu tëdd daanaka mënu fay jóg yu mel noonu ayib yu mel noonu ci xadiisul bara ibn azib yonente bi alayhi salaam daf ne yooyu munta tabaski yooyu munta julli léegi bu ci yu ko raw nekkee itam day tax mu nekk lu gën a ñàkk mën a julli muy lu mel na ñu ne bu pat farñaari ñaari bët yëpp dem wala ñu ne bu làggi benn tànk farñaari tànk yëpp a yàqu loolu boobaa du mën a julli boo moytoo tamit nopp bu kët nopp bu dagg béjjën bu damm nga moytu ko wala genn gu ñu dagg wala nopp bu ñu xotti moo gën moo gën boo ko moytoo pour mu mucc ci ay ayib moom moo gën lu mu gën a mucc moom moo gën waaye bu fekkente ni itam lu ndaw yu mel noonu ña nga ca du ko teree baax ngir nit ki mën koo jullee bu ko nit ki moytoo moo gën waaye bu ko amoon am ci nopp bi loo xamante ni dagg nañ ko ci wala mu am luñ ci bënn boobaa loola du ko teree mën a julli waaye bu ko nit ki moytoo lu mu gën a mat ci jëmm ji loolu moom mooy li nga xamante ni moom moo gën mu bokkaat ci tamit ci àtte yi nga xam ni kenn ku nekk ci ñun war na koo xam mooy bu nit ki taamoo benn gàtt ba wax ne lii lay jullee xëy na mën na koo jënd am yéene bi ne xëy na mën na koo jullee waaye loolu yéene la rek mën na dem ba ci biir mu changer avis ne julleetu ko wala mu bëgg koo jaay ut leneen loolu boobaa dara du ko ci war waaye bu fekkente ne jënd na ne moom lii mooy tabaskeem boobaa loolu tabaski lay doon xar la boo xamante ne jaamu yàlla moo tax mu jënd ko xar mooma boobu la war a rey am na ci yenn borom xam wax ne waru koo changé waru koo jaay am na ci ñoom ñu wax ne bu da koy changé wala mu koy jaay na nekk ngir ut bu gën a baax na nekk ngir ut bu gën a baax loolu tamit boobaa li ko cay war mooy bu fekkente ni xar ma faatu na wala mu am lu ko ca dal boobaa dara du ko ci fekk li fekk du gàttañ lu du sababu gàttañ loom bu dee sababu gàttañ loom la boobaa dañ koy wax ne ko na ko remplacer na ko fay mais bu dee du gàttañ loom boobaa dara du ko ci fekk lu mel ne mu ut ko xar mi dara jotu ko woon far xëy na buum laxasu ci tànk bi muy xëccu ba tànk bi damm boobaa loolu moom dara fekk ko ci amu ci gàttañ lu ndogal la gu yàlla dogal dafay daal di jullee xar moomu mais bu fekkoon xar moo xam ni tànk bi damm na ci anam bu mel noonu mu ne da koy jënd ngir tabaskee ko du nekk lu wér loolu moo tax kon taayin boobu muy ne lii laay tabaskee lu am solo la mu bokkaat ci tamit ba léegi nit ki xam waxtu wi nga xam ne ci la war a rey mooy xam ne du saa bu la neexee rek nga rendi sa gàtt ndax jaamu yàlla la dafa am nañ ko yoonalee yonentu bi alayhi salaam dafa wax ne kuy rey na xaar ba ñu julli ba noppi bañ julli ba noppi ajuwul ci rayuk imaam waaye li mu aju mooy julli bu fekkente ni ki julli na ànd ak jullit ñi wala julli jiwul mu lijjante ba xam ne julli nañ ba noppi mu soog a rendi loolu moom mooy li gën bu fekkente ni nag rey na laata ñuy julli boobaa am na ndawal amul tabaski bu nit ki di rey tamit mu bañ a topp rek pression bi ak situation beeg ni mu demee ba tax mu fàtte tegginu rey ci daas paaka ba mu ñëw bañ a métital bàyyi ma bi nga xam ne moom la nit ki di rey wala di rendi ba noppi tamit mu tëral ko jublu jëbal ko jubla jëbale ko la bu koy tëral da koy tëral ci côté càmmoñam ngir mu jekk ko ak loxo ndeyjooram koo xamante ne nag sa càmmoñ rek nga mën a rendee soo rendee itam ba léegi wér na góor dafay rey jigéen dafay rendi ki nga xamante ni moom moom moom gàttam bu ko mënee rendil boppam moo gën yonent bi alayhi salaam daf daan reyal boppam waaye tamit reylu na kon nit ki mën naa rey wala mu reylu bu fekkente ne jàppandiwul ci moom mu rendi buy rendi mu bañ a fàtte tudd turu yàlla wax bismillahi allahu akbar bu ca doolee hada anni waan ahli bayti lu baax la kon mu sàmmoonteeg teggi ñi nga xamante ne bi moom mooy teggi ni rey bàyyi xel ne lii muy def jaamu yàlla la du aada joo xamante ni nit ñi dañ koo xewal rek di ko def mu koy baaxantal waaye lii muy def nii yàlla la ci jublu da koo def ngir wéyal ndigalu borom bi subhaanahu wa taala ak ngir jaamoo ko suñu borom subhaanahu wa taala bu fekkente ne rey na itam gàtt ba mu rey gàttub jaamu yàlla la waru cee jël dara di ko jaamu di ko jaay wala mu ciy def échange échange bi mooy xatta service bu ko nit ki defal bu mu jël fayam ci gàtt bi di ko ko jox comme ku la feesal wala ku la rayal wala mu gasal la pax ngir nga fay ko service boobu mu la rendre nga jël ci gàtt bi fayee ko ko boo ko mayee neexal ko lu baax la waaye bu mu nekk fay bu mu nekk jaay tamit lu mel ne ñi nga xam ne léeg-léeg dañuy jël euh, euh, lenn ci xar mi moo xam euh, yeel yi la wala bopp bi la wala euh, der bi la jël ko di ko jaay bu ko nit ki mayee baax na waaye bu mu ko jaay ndawal li nga xamante ni moom lay am ci gàtt bi mën na caa lekk mën na cee leele mayee ci mën na ci tamit denc loolu yépp mën na koo def xam ne fan yooyu nga xamante ni moom mooy fan fani tabaski fan yi lekk la ak naan ak tudd borom bi subhaanahu wa taala waaye tamit fan fani mbégte la fani feet la moom la yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon ba mu waxee ne fan yii di fani tabaski fani feet la bu ko defee yahudi yi nga xam ne moom la ñoom lañ nekkal ca madina bu ñu gisee loolu gis ni ñuy ni ñuy feetoo ci bis bi dinañ xam ne ndakate suñu diine ak yaatal ak jàppandal am na ci kon feet la waaye feet la boo xam ne lépp tamit ci lu neex yàlla lay doon lépp ci jaamu yàlla lay doon jullit bi bu ci duggee lépp lu ko ci lënt ci diineem ci la aju ci wàllu tabaski bi ci wàllu xar mi ci wàllu jaamu yàlla yi ci wàllu boppam lu ko ci lënt mu gëstu ko laajte ko laajte ko xam ko ba xam li muy def mu teg ko ci lu leer waaye bañ a topp toppandoo bi rek ak mbaaxantal beeg aada bi loolu nekkul lu gën moytundiku lépp loo xamante ni yàq la ak puukarewu ak wane wu loolu tamit baaxul ndax nit ñi dañuy dem ba mbiri jaamu yàlla la woon ci cosaan waaye dañ ciy daal di dugal fi àdduna dugal ci puukarewu dugal ci wane sa bopp wane sa doole wane sa alal wane ne yaa ëpp ci xar mi kuy wa hakada loolu yépp mbir la yoo xam ne yu seytaane di def ci xolu nit ñi la rek ngir xajamal leen seen jaamu yàlla waaye jaamu yàlla la boo xam jaamu yàlla bu màgg la fan yi tamit fan yu màgg la yoo xam nañ ci góorgóorlu ci yokk li nga xamante ni mooy ay jaamu yàlla waaye tamit yokk ci di ñaan di ñaanal suñu bopp di ñaanal xeetu lislaam di leen ñaanal ndax fu ñu toll war nañ di ñaan waaye jamono ji ñu toll dañ koo gën a aajowoo ñuy ñaan bu baax a baax di gën a góorlu ci ñaan yi amaana yàlla subhaanahu wa taala nangu ko yàlla nañ yàlla nangul yàlla na yàlla def ñu fekki waat ko ay déwéne déwéne déwén te yàlla sam samp ñu taxawul ñu boppam ba teg ñu ci lu baax te li ñuy def itam yàlla nangul ñu ko an rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi alaxirati xasana wa qina adaba annaar rabbana la tuzig qulubana bacda id hadaytana wa hab lana min ladunka raxma innaka anta alwahaab allahuma ahdina wa saddidna allahuma waffiqna lihudaak wa jacal amalana fi ridaak allahuma inna naudu bika min alhammi walxazan والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء حي على الصلاة وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء دنياك دع أسبابها واهنأ بساعات الصفاء واملأ كيانك خشية واملأ فؤاد